soxna daal di ñàkk bakkanam ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bi nga xam ne moo nekk Louga yéen a kaay gi du l'Observateur nee na ministre Abdoulaye Diouf Sarr lu toll ci 18 enquêteurs moom la jël yebal leen fi nga xam ne mooy Louga ngir nag lépp leer yéen a kaay gi de la ko di cee nee na ngir dëgg gi feeña ngir lépp leer ministère bi ñu dénk wàllu wér yaram gi daan nay envoyé ñetti mission fi nga xam ne mooy ca diwaanu Louga yéen a kaay gi di Vox Populi nee na en tout cas yi nga xam ne daan nay génn ci enquête bi doy na waar xam ne ko waay natt daan na koy passé gi de libération xëy ko dëggal Sall nee na enquête bi li nga xam ne moom la wane ak li nga xam ne moom la directeur hôpital bi wax comme yàlla ak yàlla journal bi nee na enquête bi wane na ne non assistance à une personne en danger maanaam koo xam ne ma ngi ci ay nga war ko wàll walluwoo ko ba mu mujjee ñàkk bakkanam enquête bi tamit wane na ne am négligence bu doy boo xam ne am na ci mbir mi yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas de Sall ministère bi ñu dénk wàllu wér gi yaram gi ñoom Abdoulaye Diouf Sall jamono ji ñoo ngi xar seen tàng tubay lépp leer yéen kaay gi di bi ñu xam ne moo jiite SNEIPS daan ministre Abdoulaye Diouf Sarr yàgg na ko wax amul kenn koo xam ne dina ko jéem a làq-làqal ci mbir mi yéen a ko di cee nee na li nga xam ne moo xew ci diwaanu Louga bëri na ñoo xam ne daan nañu koy ñaawlu bu baax a baax ci réseaux sociaux yi yàq nañu musiba ak mbelengaana ñi nga xam ne ñooy sage-femme yi yéen a kaay gi di Vox L'As xëy dañu xibaar naan ñu Cheikh Omar Diagne mi nga xam ne moom la ñu tëj ci kasu bi ji am na ñoo xam ne daan nañuy jóg jéem koo tubayu la maanaam ci société civile bi ak ay organisation la ñu dëgmale dinañu amal manifestation dañoo jàpp ne Cheikh Omar Diagne jàpp gi ñu ko jàpp tegiwul fenn ak jaay doole la yéene kaay gi de enquête xëy dañu xibaar naan ñu am na ñeenti accord maanaam ñeenti déggoo jëm ci wàllum financement diggante Sénégal ak Banque mondiale Banque mondiale daan abal Sénégal lu toll ci deux cent quatre gi de sa moom ni ko xëy ci xëtam mu njëkk nee na Banque mondiale pikir Sénégal lu toll ci trois cent milliards gi de la Soleil nee yi nga xam ne moom ngeen université lu jëm ci wàllum njàng njàngale mi nee ma éducation ak lu jëm ci wàllum mbay ma agriculture yéen kaay gi di wal fajiri xëy duñu xibaar naan ñu bu ñu deful attention mbooleem li nga xam ne ay entreprise nationale la ci biir réew maanaam ci fayit la jëma ci nërmeelu la jëma la ko waral mooy dafa bëri ay entreprise nationale yoo xam ne yorin wu bona bon lañ ko yoro maanaam mauvaise gestion bi nee na mën nañu see tudd nag ñi nga xam ne ñooy waa Sonacos wala sax ñu ne waa Dakar Dem Dikk wala ñu ne waa Kutu wala ñu ne waa CICES journal bi nee na kër yii nga xam moom lañ leen tuddala maanaam yëfu yaa moo fa am te buñ ci waxul maanaam ci naax saay jëm yéen kaay gi di Sud Quotidien ci xët mu njëkk ñu fekk fa maître Aïssata Tall Sall mu daal sol robe bu avocat ma maanaam di tubayul Sénégal wax na ci lu jëm ci wàllum ajug Màkka gi ak quota nga xam ne jox nañu ko réewum Sénégal waaye tamit wax na ci sénégalais bi nga xam ne dañu koo toroxal fan yi nga xam ne moom la ñu ca diwaanu Italie wax na ci guerre bi nga xam ne moo am diggante Ukraine ak Russie wax na ci bant yi nga xam ne ñoo koy dagg di ko saax-saaxee sa àllub na tamit ci xam ne ñooy jël yàmbaa fi nga xam ne mooy ci diwaanu Gambie a doy waar gu doy la ñu àtte ni ki démb ca tribunalum Dakar journal bi nee na dafa am benn xale bu góor boo xam ne Ousmane Noël Dieng la tudd moom nag day politique Kaolack la dëkk ci mouvance présidentielle la bokk moom Ousmane Noël Dieng mi journal bi nee na da doon tëddee nag ki nga xam ne mooy ab gelam waaye bi muy tëddee gelam gelam bu tudd Mame Ndaka da ko doon filmer moom Ousmane Noël Dieng ginnaaw bi ñu filmer nag loolee nga xamante ni moom lañ doon def vidéo am beneen xale bu jigéen bu tudd Soda Gueye boo xam ne moo si jota moom Soda Gueye ba mu jëlee vidéo yooyu nag da koo envoyé ko ñuy wax Babacar Sow Babacar Sow jël vidéo ya moom tim daal di koy envoyé ministre Diène Farba Sarr daal di koy envoyé tamit Ousmane Noël Dieng mi nga xamante ni maanaam moom moo nekk ci vidéo yi waaye tamit yónnee ko jabaru Ousmane Noël mbir mi doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne fu ko waaye nat daan koy passé waaye nag kan mooy Ousmane Noël Dieng moom day politique ci bokk waaye nag mooy chef de cabinet ministre Diène Farba ndax Diène Farba Sarr moo yor lépp lu jëm ci wàllu wàllum pôle urbain bu Diamniadio mbir mi nag teeree ji na fa mbaxana doone benn démb lañ ko doon atte ci tribunalum Dakar waaye nag mbir mi li ci doy waar mooy ci weeru koor la ñu nekk moo taxi nag avocat bi nga xam ne mooy maître Amadou Ali Kane daat nay yekk musiba ak mbelengaan ki nga xam ne nag mooy Ousmane Noël Dieng nee na Ousmane Noël Dieng ñaawteef gii nga xam ne def na ko bu doon Arabie Saoudite la nëga ni waxatuñ ko kon rey nañ ko ba yàgg yàgg yàgg nee na ñu tamit Ousmane Noël Dieng mi dafay harcelé nag ñi nga xam ne ay jaboru jàmbur lañ xale bu jigéen bi nga xam ne moo jël vidéo bi daal di koy tas Niass bi ñu ko laajee nag nee na nag da doon fay da doon vancé woo ndax ba muy wut liggéey Ousmane Neel Dieng da ko doon jéem a chantage ne ma nag promotion sunu lamb xëy ñu xibara nan ñu combat bi nga xam ne moo war a dox diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 combat boobee nag ko safal ba mu saf sapp bu may ñëw nag damay agressif Gris Bordeaux Gris Bordeaux nee na ko Balla Gaye numéro 2 sunu combat bi nag dama koy pimenté maanaam